waaw bu ñu euh, jëlee vraiment tey li xew mooy prix bi nga xam ne jëlee nañ ko Kaolack ci FICCA bi day loo xam ne dañu jàpp ne ñun man président du conseil de surveillance ñu gis que ne tey liggéey bi yëpp ñi ko ëpp ñi ko liggéey mooy personnelu agence sénégalaise de promotion des exportations ñun ñoo yore vision yi ñoo yore pilotage bi mise en œuvre suivi évaluation waaye lépp li nga xam ne mooy liggéey ci terrain bi boobu personnel bi moo ko yore moo tax ñu ngi koy delloo njukkal personnel u agence sénégalaise de promotion des exportations loolu yëpp nag bu ñu ko jëlee ñun ñëpp ñu jël ko delloo ko président de la république président Macky Sall li nga xam ne moom mooy njiitu réew mi donc jox ko ko en terme de reconnaissance surtout pour confiance bi nga xam ne jox nañu ko ci euh, liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy def nii donc leneen li itam ñu jàpp que ne dañ koy delloo tamit entreprise sénégalaise yi parce que suñu jàppee rek exportation gis que ne 1985 milliards chaque année dinañ ko def dañu gis ne loolu yëpp chiffre d'affaires entreprise sénégalaise yi la donc résultat yooyu ñuy am bay am ay croissance soutenue pendant des années lu ci bëri tamit entreprise yi euh, moom la ñoom la ñu war a gën a Euh, delloo njukkal donc moom moo tax vraiment c'est une fierté non seulement pour le personnel mais également pour l'entreprise sénégalaise. Euh, waaw xam nga boo tàmbalee liggéey nga gis que ne liggéey bi mu ngi joxe teg nga sa say bët gët nga teg ko ci li nga xam ne tey jii nii mooy yokkute bu boobaa da naan ah. lu ma doon def benn dinaa ko def fukk loolu laa doon wax personnel bi ndaxte liggéey bi ñuy def moom moo indi résultat bi donc gën leen ñaax ñu gën a liggéey ba agence sénégalaise de promotion des exportations gën a jëm kanam ci mbirum koom-koomu réew mi. bi ñu jógee ci expo universelle gis kañ que ne koom-koomu réew mi tey jii nii lu ci bëri ci liggéey bi ñuy def ci mbirum exportation la gën a nekk mooy li ñu defaree fii wala ñu koy nappee fii wala ñu koy. Euh, defar ci anam boo xam ne ñi jëndkatu bitim réew soxla nañ ko yóbbu ko bitim réew jaay ko bitim réew ci ah, ci ah, entreprise yi jaay ko bitim réew koom-koom dugg ci biir réew mi bu duggee ci biir réew mi entreprise yi gën a am yokkute jël personnel euh, chômage yi wàññeeku loolu yëpp dafay loo xam ne ci mbirum koom-koom macha allah exportation daf ci am euh, daf ci am yoon donc loolu bu amee dañu gis que ne tey kuréel bi ñu ooyee ASEPEX bokk na tey ji kuréel yi nga xam ne ñooy gën a euh, indi yokkute ci euh, ci mbirum économie sénégalaise donc perspective yu am solo la gis nañ ko ne ëllëg incha allah dinañ gën a fexe ba liggéey bi gën a yokk ba exportation yi également gën a yokk